conférence de presse barena bare na coow mu ngi gën a bare foofu si suñu réew nak euh, dafa am li nga xamni xeyna ko sulé ba légui affaire pétrotim bi bare won na ay sorti l'ex-président Abdoulaye Wade def na ci sorti le concerné Aliou Sall def na ci sorti les ministres Aliou Ngouille Ndiaye ak le ministre des finances def nañ ci ay sorti et récemment le premier ministre son excellence Boun Abdoulaye Dione def na ci sorti moo tax man yi dafa nànk ak nit ñi tamit wooma ñuy jéem a seet nu ñuy mën a génne sax yenn document yi nga xam ne xëy na moom la askan wi soxla moom la askan wi di wër ba ci loolu tey jii ni ñëw ci studio ACRTV mu di African Caribbean radio et télévision Ni am ci ay radio sénégalaise basée aux États-Unis yi nga xam ne ñoom it ci di informer communauté africaine bi à l'image de Sun Afrique Inc bisunu frère l'agenda Ndaw di diriger ci New York City ba mom ci bopam mo arrangé li ngeen di gis yépp donc sur ses propres fonds bu ñu jógee euh, ci loolu il faut ni delloo njukkal rajo yi nga xam ne bi coow li njëkkee moi en personne ma def ci révélation ci licence yi nga xam ne fi ah, le 25 octobre 2012 que le frère du président jox nañ ko licence ñaari ñaari licence ci zone bu ñuy tuddee Saint-Louis profond ak Kayar profond jamono boobu xëy na ci jamono boobu PDS mu ngi soogay ñàkk nguur gi wala dañu nekkoon ci consigne maître Wade bi leen waxoon bàyyi leen waa ji nañ ko bàyyi jàppale ko wala ni bàyyi ko mu liggéey xëy na moo tax envolumé wuñu woon lii ba ci loolu rajo bi nga xam ni moo doon pionnier message bob, attaque nañ ko attaqué nañ ma xas nañ ma xas nañu radio bi ba boole radio bi sax ni opposition la mu di allo dakar point com bu di animé mu nekk première radio internet je peux dire de l'Afrique ou des Africains ici aux États-Unis donc

muy États-Unis d'Amérique te mbirum Petrotim bi dafa am ku ci dugal loxo mu Cosmos un géant américain donc ce géant américain là bu ci duggee ay textes yu leer ndaxte dina jàkkaarloog le trésor américain mu département bobu trésor mu am nak ay secteurs yu mu làmboo ba ci dana war exposer ci yu bare wane lu bare ba ci loolu dina am image ak euh, ay texte yi nga xam ne bëgg naa ngeen gis ko ay document fédéral document fédéral bi étant aussi de nationalité américaine xam naa lan manipuler un document fédéral un américain buy manipuler un document fédéral yaakaar naa ni kaso moom fa ngay jeexe te képp ki nga xam ni tam sénégalais nga nga am nationalité tam américain am nga droit boo gisee man mi ma manipuler sa document américain am nga droit nga dem nga porter ma plainte même boo nekkee sax ku yore sax carte verte ak koo mënti doon sax mën nga ma ndax te mën nga maa yóbbu ci yoon ndax dama manipuler un document fédéral donc je me base sur des faits du ma di fété ci bi bor wala ci balé bor. » Dañu fété rek ci walu askan wi du neex ñenn ñi dina neex ñenn ñi Wa li ci am solo rek moy na léral bëtu askan wi nan la seen alal wi kon même la première dame du Sénégal qui est de nationalité américaine aussi même le droit pour faire que manipulé manipuler un document américain Voilà, me présente un document qui est faux attribué au gouvernement fédéral mon ci ne mën na ma porter plainte Donc, on a les mêmes droits dans ce pays parce qu'elle est américaine aussi